salaamaaleykum man maa ngi tudd euh, Issa Dieng je suis né et grandi à Rufisque plus particulièrement à Bargny donc euh, suñu borom dogal moo yor euh, benn mouvement mouvement bi tudd jëf jël te sàmm li ñu bokk donc suñu borom dogal man may président wu mouvement bi donc mouvement bi aussi mu ngi basé wu à aux HLM donc euh, voilà quoi ñu ngi foofu di jéem di liggéey. donc mouvement bi xëyuñu rek euh, def ko donc comme ñun ay jullit lañu di ay taalibe suñu borom dafa dogal ñu ñu ñu am ndigalu suñu kilifa suñu sëriñ suñu borom dogal bi laylatul xadra daaw bi jàlle mu woo ñu jox ñu ndigal pour ñu def politique. mais def ko politique jaamu yàlla créer mouvement depuis juin 2017 ñu nekk ci di ci liggéey donc noonu la mouvement bi juddoo daal. objectif mouvement bi d'abord euh, mu ngi jëm ci comme ni ma la ko waxee ci liggéey ci jaamu yàlla donc euh, liggéey ci développement ak social. parce que boo xoolee actuellement nii lu bari dafa am dafa am ay tardement ci ci ci suñu système donc ñun suñu objectif daal mu ngi jóg ci liggéey ci développement ak aussi dem ànd ak ki nga xam ne moom la fi yàlla teg tey mu le président de la république ngir jàppale ko mu amaat euh, deuxième mandat. waaw choix bi moom choix bi moom c'est facile à expliquer parce que. en 2012 bi yàlla suñu borom dogalee en 2009 2010 2011 bi président Macky Sall génnee ci gouvernement précédent bi Abdou maître Abdoulaye Wade ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam d'ailleurs may ko wér bi mu génnee si la ànd ak moom parce que avant muy génne dafa nekkoon nit boo xam ne ci mouvance Abdoulaye Wade moom moo waxoon ne ay chantier yépp ci ci ci président Macky Sall la génne ci la taxawee. donc ñu gis na mu ngi fa doon liggéey liggéey bu extraordinaire mu nekkoon koo xam ne ku ñu soppoon la ci politique doon ko suivre bu baax bi mu génnee nag suñu borom dogal ñu ànd génn ak moom donc bi ñu àndee ak moom génne ñu mu dem présidentielle euh, 2012 ñu voté pour moom que ba ni ko yàlla joxee réew mi donc loolu la ñu def continuité rek pour ànd ak moom mu continuer liggéeyam. bon choix bi jafewul ndax li tax jafewul mooy. continuité la rek dañu ko faloon en 2012 donc ñu ne nañu continuer ak moom en 2019 fala falaas ko au premier tour bi si mun naa wax ne création mouvement bi amul difficulté au fond de moi parce que comme ci dafa am ci fu ma basé wu pour créer mouvement bi comme ni ma ko waxoon au début donc def mouvement bi dem ci difficile mais par contre am na tuuti ay difficulté ci ci ci gannaaw bi ñu demee ba commencé nekk ci liggéey bi amoon am na tuuti. au fait difficulté bi daal ni ma ko mun a tënkee mooy que xam nga bu fekkee da nga da nga da nga dem ci ci ci kër wax ne danga ñëw pour jàppale borom kër gi mooy le président de la république donc. munoo munoo munoo jóg tàmbalitee rek bëgg bëgg dem accès am accès ci ci président de la république da ngay xool ni gox bu nekk am na ku mu ku mu tànn teg ko fa donc li ngay mën a def mooy dem ci ñooñu duñu benn duñu ñaar duñu ñett ku ku nekk nga dem ci moom yëgal que ni ko yaa ngi ñëw ànd ak moom ci liggéey bi nga xamante ne moom la ko président dénk muy par exemple le président du conseil départemental le coordinateur au département de Rufisque les maires. change et tout le monde ñi nga xam ne daal ay ay kilifa lañu ci APR ngang ko donc ci ñooñu la ñu commencé suñu liggéey dem ci ñoom foofu la maanaam difficulté bi tàmbalee. waaw effectivement loolu ci laa bëggoon a ñëw sax parce que boo xoolee li ma yor nii lépp lépp ay ay ay ay ay ay correspondant la lii lépp ay correspondant la yoo xam ne mu ngi nii gis nga ko plus de dix à quinze yoo xam ne vraiment. dañu ko bind ci ci ci autorités yi même même or du hors or hors du de du local bind nañu leen ñëpp ñoo xam ne ay responsable la ñu yor responsabilité la ñu yor ngànk APR rek bind nañu leen. ci département bi nag am na ñoo xam ne suñu borom dogal na comme ñoo dëkk jàpp naa ne jaral woon bind def nañu ay démarche par exemple mun naa citer par exemple ku mel ni le coordonnateur Oumar Gueye depuis que ma créé mouvement bi. 2017 juin 2017 ba fi may wax ak yow nii pour am accès si moom c'est très difficile te mënoo ko tëb mënoo ko bëtt mënoo ko burlu puisque suñu borom dogal na moom moo fa nekk coordonnateur donc bu fekkente ne bëgg nga liggéeyal euh, le président de la république foog nga jaar ci moom mais il est très très difficile pour nga am ci moom accès